asalaamaaleykum man la honorable Dial Sané madame Sow dëkk ci commune bu Treichville sant yàlla bu baax a baax sant yàlla bu baax di remercier suñu lion yi wax dëgg yàlla euh, sagalati nañ ñu ndax ñoom ci sagal ñu la ñu dëkk te vraiment lii fierté la tey jii ñu amaan ndam ci kaw gine ñu ngi leen di ñaanal yàlla rek li des ci kaan bi euh, toujours rek muy demee nii ñu ñaan yàlla rek jëlaat ndam li yóbbuwaat ko Sénégal sant sénégalais yi nga xam ni ñëpp ñoo yeewoo Abidjan sant aussi ivoirien yi nga xam ni ñoo ñu dalal ci seen dëkk bi ndax vraiment kaan bi ni mu demee sénégalais yëpp gis nañ ci seen bopp sentir nañ ci seen bopp te ñëpp kontaan nañ ci ndax ku mën a dem Yamoussoukro di nga dem mais ku mënul dem Yamoussoukro ndax contexte bi yi aussi am nañ ay différents fan zone ci communes yi nit ñi di fa daje di animer di supporter te loolu wax dëgg yàlla lu neex la ci xol lu rafet la aussi ci gis. Ah, loolu sant yàlla rek xam ne rek euh, balaa dara xew aussi xam ne waa Abidjan ñoo ma woolu ba fal ma kon fu ñu daje rek man dama fa war a dem ànd ak ñoom ci ndaje boobu lékkati li ma am mu néew mu bari ma bokk kook ñoom parce que yaakaar naa ne loolu mooy sama wareef. di jam di deglu aussi seni soxla di len ko yobul fa nga xamni ni fa ko wara yobbu di ci taxaw aussi ñu am ci satisfaction election yi ñu jëgmal dal nañ sante yalla bu baax ñaan yalla mu doon election yo xamanteni bi ñu ci ñaan jàmm xamni avant tout c'est le Sénégal ki gagne ñu ñaan yalla mu ñu doon election yu apaisé yu sedd te yalla may ñu ci ndam waaw bu soba yalla le candidat Amadou Ba c'est le meilleur candidat parce que ñun Macky Sall lañ gis suñu kanam Macky Sall moo ñu tànnal Amadou Ba kon le candidat Amadou Ba c'est le meilleur candidat et incha allah on gagne les élections au premier tour.